réew bismillah barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo leen di siyaar bu baax a baax di leen balu àq di leen balu àq di ñaan suñu borom boole ñu jéggal te boole ñu yokk ay tawféex ba liggéey bi ñu sumb ñu àgg ci ak jàmm te dunde ko ni ko sëriñ bi bëgge te daje ca ngërëmam barke Seexu Xaadim xam naa soññee yi ñu sama jëw yi ñu jiitu soññee yi matale na lool woote bi it matale na wax tuuti rek ci conservatoire xam ne benn bànqaas la bu bokk ci commission culturelle te sëñ ñaan Jóob jiite ko bànqaas bi tamit sëñ Lindoor Jaxate jiite ko kon ci seen tur laay wax di soññi mbokki taalibe bi yëpp jàpp nañ ne fii fan yu néew incha allahu rabbi programme bi dana génn kuréel yépp daan ci jot kon ñoo ngi soññi mbokki kuréel yi nekk ci réew mi yépp ak bitim réew yëpp ñu teel a ñëw mbokki teere bi nga xam ne ci biir réew mi lañ nekk képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi jël kaar nga fexe ba huit heures incha allahu rabbi fekk la ci biir saal ba nga kaar bi ngay jëlit nga waxanteeg moom fexe ba jeexeental ba tamit di huit ca te suba dimanche incha allahu rabbi loolu daal ñu ngi koy sàkku di sàkku ñu teel a ñëw ndax euh, cérémonie ouverture bi bëgg nañ incha allahu rabbi neuf ñu tàmbali ko foofu nag ñu ngi ci sonn mbokk taari bi yëpp xam ne ni ñu ko waxee sànq rek waa commission culture ñi ngi waajal yu am solo bëgg nañ ñëpp teewee jataay boobu ndax jataay bu am solo lay doon ndax bari na yu ñu ci waajal bëgg ko caa def te lépp fas yéene rek bis bi dund bis bi taaru sàkku ci ngërëmal Sëñ waa kon ñoo ngi soññi mbokki taalibe yëpp rek fu fu fu fu donga nekk rek fexe ba vidéo jooju fekk la ci biir saal bi xam naa programme yi incha allahu rabbi fii fan yu néew rek dana génn bu ko defee kenn ku ci ci nun kuréel gi nga yor nga soññ ko eh, ba fexe ba Eh, heure biñ la jox nga nga nga samonté ak waxtu yi ci sa mbolo ak it minute yi ñu la jox nga fexé ba samonté ak mom ndax kat bis bi yaatu na yaatu go xamné ni képp koo xamné ni jox nañ ci cër rek da nga wara xamné da nga ko bok ak say mbokki taalibe té lu ñëpp bok ah lo ci am rek da nga ko wara sante sun borom di ñaan nak sun borom ñu ag ci jàmm te eh, daje ci ngërëmal sëriñ bi di soññee bu baaxet bu ñëwee ci biir saal ba ñu xam ne dundu xasida yi moo ñu fa indi dundal xasida yi moo ñu fa kon loolu ñu sàmmoonte ak moom bu baax a baax a baax a baax ci wàllu nu ñuy def fexe ba mën a teelu njàng mi ak la fay xew lépp te bisu xasi bi bisu xasida bi rek tax koo jóg ci dundal xasida yi ak dund ko kon loolu day am lum laaj lam laaj nag mooy nib jullit baaxoo def rek nib murit baaxoo def mooy ñëw ca barab ba akuk murite akuk teewlu ak dund bis bi dund xasida yi loolu nag day laaj teewlu bu am solo kon ñoo ngi soññ ñëpp di ñaan ku ko ñëwit nga nekk ci durus tudd yàlla teewlu xasida yi loolu daal lañuy ñuy sàkku ca barab ba ndax ñi yor liggéey boobu ñu ngi koy sàkku bu baax ndax tamit bu coow li baree xam kenn ku ne xam na ne njàngum xasida dëppoowul ak coow lu bari ndax loolu dégg nañ sëñ Cheikh Caa sëñ Cheikh Sarr sëñ Cheikh eh, Thiané Sarr soññee yim ci defoon waxoon ne am na bis eh, kuréel kuréelu sëñ Massamba gi jàng xasida yi ñi sëñ sëñ Massamba soonoo ñii am ku jógee ca biir këram ñëw di déyante ak moom sëriñ bi ci boppam moo wax kuréel bi ñu la bi mu la bi mu taxawloo mu mu ne sëriñ Masamba bàyyi leen bu ñuy jàng sama xasida yi ngeen di ca bërkal ay wax ku ko ci bëyiwul kat malaaka yi daañ la bër ci ca safaanub àjjana safaanub àjjana nag kenn ku ne xam ne ne mooy moom kenn ku ne xam na ko kon ñu moytu lool bu baax a baax a baax a baax ginnaaw sëriñ Masamba ma nga xam ne rakku rakk sëriñ bi la lu bari ci xasida yi moo ko maas la sëriñ bi wax loola kon astama nun dongay ndaw yi kon nañ bàyyi xel loolu buñ ñëwee teewlu te jéem a dund xasida yi jéem a dundal bis bi kon ñoo ngi jégalu bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf